فلا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ذوي الرضوان والتمكين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته maa ngi sant yàlla di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di sant Seexul Xadiim di nuyu tey siyaare Seex Mamadou Muntaxa di ko ñaanal suñu borom yàggal ko fi te dëgëral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 man ma jàpp ne danañ ma Basiiru Touré ma ne ko Basiiru da dangay dem ba midi nga woo ma téléphone wala nga ñëwaat ndax damay doog a tàmbalee dallu yàlla dogal nag bis boobu damaa julli suba def sama naaxu si doog a tëdd daanaa dallu ci guddi gi waaye bis boobu dama guddi gi tëdd dama julli sama ba def sama naaxu si ma ne ko da ngay bàyyi ba midi nga ñëwaat wala woo ma téléphone ndax damay doog a tàmbalee dallu lii leen seq ci ay wax moom kooku ci la ba ma xëy sama buntu ne dugg ci biir ne fekk néeg bi sama ñaari doom laa ci tëddal yu jigéen ki ci mag fukki at ak ñaar fukki at ak ñett lay am foofu ci laa ko poñee xëccaat ko ba ci buntu néeg bi ndax man ab bandit laa ko teg ci la ma waxee ni ma police ci poñe boobu ma ko poñe moom poñe bu ma boobale ci la ma waxee ni ma police ma bàyyi bi ma waxee police daa génne aw carte war na ma bàyyi poñe bi ñu ko taxawal ne kon ma ubbi la buntu saal mu ne ma déedéet dañu dem ni police la ne ko nag man xam naa samay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 toujours maa ngi diif kii nanguma lool loolu ak ñu génne ma kër gi ci anam googu ak sama bakkan rek laa yemale woon képp ma bi ma leen bàyyee noonu ak sama bopp ci la kenn ci ñoom ñaar ñi téye sama loxo di te kenn ci ñoom moo ma doxe ginnaaw fii la dugal loxoom nii la ma faje ci sama ginnaaw la nekk nii la ma faje ci taxawoon ci sama buntum néeg te sol njëm put bu weex bi ak kaay moo taxaw ci sama kanam kooku kooku kooku rek laa ci xàmmee ndax ñett ñi ci seen kanam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 sëñ Cheikh Abdou Latif ak Mamor Mbacke ñoo ma dëng dugg ci bureau commissaire ba commissaire Faye rek lañ fa teg mel moom ak ñeenti éléments yi ma jël si ak sëñ Cheikh Abdou Latif Mamor Mbacke génn wutal ma ndax ñëwaat bi mu ñëwaatee moom dafa génn waaye ñu ko maag commissaire Faye ak sëñ Cheikh Abdou Latif ak ñeenti element yi commissaire Faye lenn la wax maag sëñ Cheikh Abdou dañ ko dégg bu mu wax ndax xamuñu lu ma fi indi ma commissaire Faye ci la waxee sëñ Cheikh Abdou Latif ni ko Basirou Touré mii Basirou Touré la ma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 bi mu waxee loolu ma ne ko commissaire Paye da nga ni nit la woon sama kër ki la woon sama kër laa bëgg man ak moom ñu jàkkaarloo ndax Bassirou ba mën naa def ko njaam waaye ki xam ki xam kër Bassirou Touré ki xam Bassirou Touré bay wane këram bay wane sama kër kooku moom bu janoog Bassirou Touré daana di kii mooy Bassirou Touré kooku mooy jàkkaarloo man bu ne maay Bassirou Touré xamaguma lu ngeen toppi Bassirou Touré waaye lu ngeen wax ni Bassirou Touré ba def bu waa danaa ko nangu mu ne ma police du liggéeyee noonu moom commissaire Faye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 ak ba kër Bassirou Mbacké jaawale jëmmi Bassirou Mbacké ak jëmmi Bassirou Touré ba jëf-jëf ji maa ngi jéggul wax ko ci kanamu sama waajur ñu jóge fa dem ci sëñ Moussa Naga mooy sama kilifa sëñ Moussa Naga moo toog sama waajur sëñ Cheikh Abdou Latif toog ñaari commissaire yi toog muy commissaire Sarr ak commissaire fay ak sëñ Moussa doomi sëñ Moussa Naga ak sëñ Moustapha Samarak sëñ Moussa Nawel mu ubbi jataay ba lan la wax dana commissaire commissaire lan lan nan la mbir yi demee lu xew